3 minutes, suivi de Siran Ndiaye. Président, Madame Ministre, maa ngi lay nuyu bu baax yow ak euh, les autres ministres di nuyu les les honorables députés chers collègues madame ministre démb bi fii sa successeur à la tête du ministère des affaires étrangères ñooy maa ngi la yóbbante ngërëm ci kaawu Mbaye ak Diop li nga ci def yëpp yëg nañ ko di la wax rek nga bañ a bàyyi donc li nga ci xam Ismaïla xamu ko ci donc ñu ñaan rek ngeen continuer ci incha allah pour que yàlla mën ñu ci defal euh, ndam et quatre personnes rek laa la bëgg a limal madame la ministre bëgg nga bàyyi ci xel je sais que vous n'êtes pas juge vous le ministre de la jeunesse chargé d'appliquer la politique et la vision de justice définie par le président de la République. Docteur Seydou Diallo, il est médecin biologie membre du conseil municipal de Yeumbeul Sud. Il a été arrêté te ñun ñi dëkk ak moom bi ñu ko arrêté dañu reetaan ce garçon est incapable de faire du mal kenn xamul lu tax ñu arrêté ko parce qu'il est le responsable euh, départemental de PASTEF mu bokk ci ñu jàpp li ñuy ñaan rek mooy dañ ko entendre dans le fond et d'ailleurs c'est un garçon de talent boo xamante ni euh, vraiment ku baax la bi mu nekkee nii tey ak rëbës ngi jàppale l'administration pénitentiaire ci li nga xamante ni mooy seen seen administration sanitaire docteur Toussaint Manga moom it ñu bëgg ñu xool li nga xamante ni moom mooy dossier parce que il est le médecin chef de Ngor Almadi donc ñooñu population moo leen soxla waxuma ñoo def waxuma defuñu mais 6 mois 7 mois 8 mois n'est-ce pas d'information judiciaire nañu entendre leen dans le fond xool boo xam ne la ñuy bi laal Bilal li ñu ko jàppee ñu enfin ñëpp la jaaxal parce que il n'était même pas au Sénégal bi mu ñibbisee il a tenu une conférence de presse même su fekkente ni il a offensé le chef de l'État on pouvait ne pas ouvrir une information judiciaire madame la alors euh, mënoon nañ ko juger en flagrant délit dóor ko li ñu koy dóor après mu génn le département de Kër Massar a besoin de sa commune, Kermassar Sud, a besoin de son maire. Modou je termine par là-bas, il a été blessé. Bobimou Neké Rebus, trois heures de temps, le fait de ce garçon est blessé, gravement blessé. Donc, Bogna dossier dans le très sincèrement. Madame la ministre, il me semble que vous n'êtes pas d'accord sur euh, euh, dire au juge des libertés ou juge des référés, mais loolu aussi, dafa ñuy wan nous euh, doole procureur dafay gën a yokk procureur doole ji mu am suñu wàññiwul dooleem dina gën a xaw a doy man mi dama ko dund donc moo tax à chaque fois bu ma taxawee fii devant le ministre de la justice dama koy wax procureur rek moo am possibilité am benn dossier en flagrant délit ibbi une information judiciaire et loolu jàpp naa bokk na ci réforme yi nga xamante ni war nga ko apporte parce que tey sa role mooy nga humaniser li nga xamante ni mooy la justice jubale les sénégalais avec seen justice je vous remercie